sax xam naa ne soo newoon daal la ñu bëri duñ ko wax ñu fekk fi acteur acteur bu mag bi mooy bile mu lay nuyu. ngi leen di fay di leen baax a baax di leen jox seen wàccuwaay. waaw la ci mariage nga la soo ko mënal mu nekk bés bu a bëgg ci àddina bi. yoon la parce que Ajara euh, suma rakk la. suma xarit la. Euh, sama nit la sama lépp la. Mm-hmm. ba tax na euh, mënuñu def lu dul teew. ci bis bi ëpp solo ci ci ci ci àdduna hmm. di ko ñaanal sëy bi barkeel te loxo yi ko yàlla teg aussi mu doon ay loxo yu sedd hmm. boroom xam li ko yàlla dénk lan la hmm. parce que ajara nit ko am valeur te euh, dina baax ay xaritu ajara wala ñu jege adara toog boroom këram wax ko kii pas parce que ini naa ne ñu bëri xamal ne mais ragal rek mooy tax ma tere wax ni wàlliwu la mais yàlla xam waaw ajara moom wax dëgg yàlla ajara national la quoi voilà ñu gis ajara lu muy wane série yarute boobu ak am contexte daa mel ni bii sa ajara loolu lay dund waaw ni mu mel rek la dafa dogal rôle bi muy la mel te nu raw la ko mel yar bi yeewu bi xam bi dal gi teey ak yem bi jara gàtt na làmmiñ gàtt na tànk baatam doo ko dégg mu euh, liggéey nañu sama collègue loolu si liggéey nañu ragalul liggéey foo ko woo mu wuyu la ci wàllu liggéey am na ful am na faayda xam na boppam xam na boppam xam na boppam mu ko wax ba muy ñett tey lan lay doon ajara xam naa ne koo xam ne ku méttee nga su ma amoon loo koy ñaax lan lay doon ci sëy bi. doomu ñaay kenn du ko ñaanal rëy dañ koy ñaanal gudd fan rek li ma koy ñaax mooy li mu fi mu yàgg teg tànkam. bu mu ko fa teggi parce que képp ku ko yàlla di booleel ci loolu la koy fekk. képp ku ko yàlla ci booleel ci loolu la koy fekk. ba tax na mënu ma ko wax leneen lu dul. di ko ñaanal yàlla. yàlla boole ko borom këram mm-hmm. yàlla suturaal ko jàmmal ko mm-hmm. euh, lépp lu mu ci mbébét mm-hmm. euh, yàlla defal ko fa yàlla yokk suturaam guddal fanam wéeral ko moom ak borom këram yàlla may la njaboot ju barkeel gis nañ nag néegu sëy rek problème la surtout nga naan nga teg nga nekk célébrité nga teg ci nga ne da dem ngay sëy boo fàttewul fi nga jóge dara du fees sa bët boo xamee fi nga jógee boo xoole yaayu ajara nga xool papu ajara di nga xam ne ajara du yenu dara di nga xam ne dara yóbbuwu ko di nga xam ne ajara dara mënu ko yóbbaale nit ku nit ku am yar la te yaakaar naa ni boo amee éducation de base jamono lu mu neex neex neex neex euh, boo yendoo àll lu mu lu mu guddi guddi guddi dangay ngay fanaan si ajara nag loolu la xam na fu mu jógee xam na mooy kan yabul yabul ay waajuram sax ñun sax yabuñu parce que waaw am na lu ñu séq ak moom loo xamante ni moom xam na nañu xam nañu waaw. <laughs> ma moom ñaar ñu ko ñoo ko seq soo nekk ku jigéen dangay nekku góor ki te borom këram tamit yan kàddu nga koy dénk. waaw mooy li ma njëkk wax rek na xam li ñu teg ci loxoom lan la. moo tax ma ne bu ma ragalu woon dama naan ajara wàlliwu la. bu xamee valeur ajara. lépp lu mu bëgg ci àddunaam dana ko am bis bu ko loko lu ko mom nag moom si gën a feeñ ci moom parce que du ko ñuy tooñ wallaahi li wax ni waxuma ci sama bànneexu bakkan c'est pour l'avoir pratiqué socialement mu nekk sama rak ma xam laa biir ak rafet xol bi nekk ci moom moo tax ma wax ni bu melee noonu rek moytu ko gàddu ak day yomb parce que la la bu baax baax ragaluma ajara ci sëy damay ñaax jëkkëram rek mu xam valeur bi mu yor waaw. macha allah kaddu yi am na solo mais Billy ci yan projet la nekk fan ñu ngi waaj ñu ngi waaj. ñu ngi waaj li ñama ko sénégalais surprise la ñu ngi waaj lu rëy daf leen ci ñaan rek ñu ngi waaj ay mbir yu waaw. jaajëf merci beaucoup